ñëw ci bisu Moussa Diama lan nga ci wax lu waral sa teewaay. waaw d' abord ma sant yàlla julli seen bi salaay salaam ah waral ma ñëw fi tamit Moussa mu waral ma ñëw fi ci ci Kaolack di nuyu sëñ bi bu baax di ko ziar di kontaan bu baax toog ak sët Serigne Touba wax alhamdulilah rabbil alamin ñëw nag aussi seet sumay supporter ak sumay am di jàmm ak sumay fans Moussa nag wax dëgg yàlla nekk nit ku baax nekk su ma waaye su ma xarit yàgg a lii ci Kaolack mu invité mi ma ànd ak sama doomu nday ñëw. Balla bu ñëwee Kaolack day mel ni Ndakaaru la nekk man ñaari yoon fekk naa la fi mais day mel ni Ndakaaru nga nekk ci man ndax niñ la bëgg. waaw loolu àdduna la rek wala seen cofeel ci man loolu la yàlla dogal parce que mu ngi mel ni parce que fii ak Ndakaaru benn la peut fii sax moo raw ni ñuy tëggee làmb fii chaque dimanche ngay gis ñu bëre wala chaque samedi ñu bëre donc pour man Balla Gaye bu ñëwee fii ñëpp di ko bëggee peut-être lu muy def loolu rek yàlla may ko nit ñi bëgg ko kon nag nit fu ñu la bëggee aussi tamit rafet na ñu xewle nga dem fa.